pour ne dañuy dem ci journée boobu noonu. dañu ne euh, ñaari condition la ñu teg ñaari condition ma ñëw ci benn par benn première bi moom mooy la question fiscale. question mhm. fiscale boobu noonu euh, Salma. amul kenn ci ñoom amul kenn ci ñoom ku war a mën a contester seen obligation de payer le fisc amul kenn ci ñoom du ko contester ñoom ñëpp nangu nañ ne fisc bi dañ ko war a fay. mais mhm. tey ci seen conférence de presse bi damaa déggati lu gën a doy waar. kon ñoom nangu nañ ne am Sall amnistie fiscale bi mu leen defal c'était illégal ñoom nangu nañ ko tey. nangu nañ ko. parce que wane nañ ne loolu warul jaar parce que c'est du ressort exclusif de l'Assemblée nationale waa léegi yow Salma ki la may lu mu moomul yow mi mu may lan nga ki nga xamante ne loo xamante ne moomu ko la la jël. ñëw mhm. jox la ko loolu mooy recel. mais dañ naan la le corrupteur ak le corrompu ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk àtte. très bien donc kon ki nga xamante ne tey jii nii jël na lu mu moomul jox la ko. yow moomu mu jox lu mu moomul ak moom mi la ko jox yëpp vous êtes dans l'illégalité claire donc ñoom nangu nañ ne euh, question d'amnistie fiscale boobu ñuy wax c'est illégal nangu nañ ko alors léegi tey jii nii ñan la euh, ba ñun sénégalais lambda yow salarié bi ki nga xamante ne mi ngi jënd ji ñi nga xamante ne ñi ngi dans les coins les plus reculés di bay ñi nekk ci marchand ambulant ñooñu ñëpp dajale par l'argent du contribuable par le fisc mu nekk l'argent du contribuable ñu war ci tabax tali tabax ci euh, hôpitaux yi tabax ci euh, écoles yi léegi yi am ñenn ci ñoom ci sénégalais yi ñu ne ñoom du ñu wàccoo ak obligation fiscale moom loolu fan lañ koy teg ak fan lañ war a nekk ci dëkk bu sérieux bu nit di taxaw dina ne day grève parce que man dama war a nekk dans l'illégalité maanaam ñoom dañuy grève pour être dans l'illégalité ñoom nangul nañ ko seen bopp kay man bi ma déggee seen conférence de presse bi ba ñu nangu ne dañu war a fay nangu ne Macky Sall mi leen defal amnistie fiscale waru koo def. Mhm. li ma doon xaar moom mooy ñu dem fay ji loolu kese lañ ci waroon a teg. d'accord. Macky Sall li ñu def waru ñu koo def ñun ñii dañoo war a fay li ci waroon a topp obligatoirement mooy fan lañ bëri ba ñu fay mais man gisuma ban raison lañ war a laaj demande d'audience ba euh, le président Diomaye déedéet audience benn bi ñu waroon a laaj dañ ko waroon a laaj euh, direction général des impôts et domaines. bu ñu leen mhm. accordé audience bi ñu ñëw ak seen i chèque fay. Mhm. bu parce que président Diomaye may moomu ko ba di ko baale. waaw premier ministre Ousmane Sonko moomu ko ba di ko baale. c'est nous mhm. ñun ñooy euh, jàpp ne dañoo war a joxe euh, une somme sans contrepartie pour recouvrir les charges publiques booy définir impôt noonu nga koy définir mooy. Mhm. un versement sans contrepartie en vue de recouvrir les charges publiques ñenn ñëw taxaw bëgg di bénéficier ci charges publiques yi parce que kenn ci ñoom ba mu ne dañ koo jamoon xaw lan ay jamu tappale yooyu. mais mhm. ci service public yi la demoon muy hôpitaux yi. boo jël oto di dem tali bi ngay jaar ce sont les charges publiques. Mhm. alors ñun ñëpp dajale pour tabax loolu noonu yow nga ne dajale. benn beneen bi ci topp mooy impôt sur les sociétés dañ koy tekk trente pour cent ci bénéfice bi nga xamante ne yow am nga ko. Mhm. waxuñu ñu la nga joxe sa xaalis bi nga xamante ne mooy actif bi de bénéfice bi. waa léegi bénéfice boobu noonu képp kuñ ko wax ku amul bénéfice bokkoo ci. déedéet. kon nag ñoom dañ leen a jox bénéfice boo xamante ne lenn li nee na nguur moo ko moom nga teqaat ko ci soo poche ba mu toll nii mu toll. Mm-hmm. maa ngi leen di dégg ñu naan taxation d'office. parce que liñ toog te fayuñu ko dañ leen ci tegaat ay pénalité loolu ci loi bi la bokk. nañ dem nee na waruñu aussi jékki-jékki rek tëj seeni compte mais déedéet kenn jékki-jékkiwul tëj compte kenn Salma. Mm-hmm. ATD foo ko dégg mooy avis au tiers détenteur mhm. bu ma la koy expliquer ci anam bu simple man ameel naa la xaalis mais man sama xaalis mi ngi ci coro man maa la ameel mhm. mais man dama jël sama xaalis dénk ko coro yoon daf la may yow par une action oblique nga ci coro bi téye sama xaalis parce que moom elle est tierce personne moo tax ñu ne ko avis au tiers d'accord elle est tierce mais elle est détentrice des somme moo tax ñu ne avis au tiers détenteur le tiers bokkul ci contrat bi maanaam administration fiscale ak ñoom ñi ameel bor fisc mhm. banque bi yoonam newu ci mais comme que dafa yore xaalisu ci amel bor fisc moo tax moom mi nekk tiers détenteur des fonds ñu def ko avis loolu balaa ñu la koo defal procédure bu gudd la mhm. dinañ la mise en demeure dinañ la informer dinañ la jox sa droit d'opposition boo d'accordul nga contesté loolu noonu mhm. voie de recours jeex ñuy soog a def ATD kon mhm. ATD du brusque d'accord administration fiscale Sénégal duñu ay como ATD brusqueul kon ñoom ñoo la gën a xam lépp li fi jaar ci procédure mhm. ñoom ñu mais liñ lay wax naan la naan la secret fiscal secret fiscal aussi Maimouna Ndour Faye tey def na ci taxaw seetlu ginnaaw publication bi Babacar Fall defoon Twitter di wax ay secret fiscal jamono ji li ñu def du yoon parce que waruñu jël seen ay données personnelles di ko divulguer comme ça. Salma Salma. Mhm. secret fiscal. secret bancaire secret professionnel secret yëpp yi ngay dégg dafa am limite. tey jii nii boo demoon euh, ci euh, procédure judiciaire banque warul joxe benn doone ci kenn mais juge mhm. d'instruction mën na ko ko autoriser c'est-à-dire euh, yooyu noonu tant que contrôle maître l'ordre public wala la transparence des finances publiques ku ci nekk am na sañ-sañ administration fiscale am na sañ-sañ ni mu dem meew naka la def ba euh, bloqué sa euh, compte te te kaasoo loolu blocage compte bi xam nga am nañ ci droit. waa daa ngaa bloqué compte ko xam. Mm-hmm. nga xam compte bi ku ko moom. donc dafa am fu mu yem. am ci ñu mu yem. xam nga problème bi du loolu du wax ji maanaam yow jël nga loo moomul ñu ne la jël nga loo moomul nga ne lu tax nga ma koy wax. Mm-hmm. maanaam ki nga xamante ne moo def la mu warut a def dañ naan ko yow la ku aj mm-hmm. mooy ragal ku téen ku deful dara am na des organes de presse yoo xamante ne bokkuñ ci lii déedéet amul luñ dërëm fisc mm-hmm. alors donc kon ñoom bi ñu nangoo ne ñoo nekk erreur ñu nangu ne liñ leen may ci amnistie fiscale du yoon fa mu war a jaar jaaru fa waaw li nga xamante ne fa mu jaar jaaru fa yow kay tu es dans l'illégalité dégg ñu naan duñ ay hors la loi waaw waaye ma wax la ne hors la loi waaw bu ñuy ñëw ci deuxième deuxième cause bi nga xamante ne moom moo waral euh, coow li. waaw xam nga xam nga xam nga mooy affaire convention yi. convention yi waaw bëri na coow nag de. Salma code de la presse laa lay jox nga dégg ko sénégal yi dégg ko ma liir ko textuellement. Mhm. parce que léegi booy wax ci loi day lire ñuy dégg. mooy dëgg. article 47 code de la presse. Mhm. moom mooy wax fonds d'appui mooy d'aide à la presse. Mhm. article quarante sept bi. teel ma article quarante noonu. léegi article ah. quarante huit bi moom moo am solo daf ne. mais mhm. pour pouvoir bénéficier des avantages économiques prévus aux articles précédents mooy ban article quarante sept muy aide à la presse. mu ne pour nga mhm. bénéficier ci les entreprises de presse doivent remplir les conditions si après bankal sa baram première condition mu ne avoir un caractère réel d'intérêt général. quant aux informations et programmes proposés au public dans le respect de la promotion des valeurs et de la diversité culturelle nationale mhm. loolu rek problème la ci ñoom mission d'utilité publique bañ leen mhm. santoon defuñu ko nekkuñu ci dañoo nekkoon ci seen yëfi bopp ci seen yëfi bopp ci seen mbiru bopp mhm. mais cette appréciation peut être subjective oui. donc bàyyi ma ñëw ci deuxième euh, condition bi ñu wax ñu ne avoir un nombre minimal de cinq emplois ñenn am nañ ko permanent mhm. ñenn ñi am nañ ko waaye ñoom euh, Salma TV ñooñu kenn xamu leen ba ñuy am en euh, permanent mhm. mais troisième condition bi moom moo ma intéressé ci lii may bëgg a wax mhm. mu ne être à être à jour de leurs obligations administratives fiscales et sociales fiscales je répète, et sociales je répète être à jour de leurs obligations administratives fiscales et sociales loolu lu muy tekki mooy article quarante huit code de la presse dafa ne mhm. képp ku ameel tarfatal ay ni atome de franc boo ameel fisc yow waroo bénéficier wu aide à la presse kon ki leen jox aide à la presse li mu leen jox waruñu ko laal ñoom mhm. donc kon ki leen ko jox ak yow mi ñu ko jox yéen ñaar ñëpp vous êtes coupable de détournement de deniers publics dañ leen jox de deniers publics yoo xamante ne waroo leen koo jël lii texte la inventé wu ma ci dara Bocar Thiam moom kon kon Bocar Thiam moom fu mu ne war nañu koo war war nañ koo jëli mhm. ñi mu jox it te waru jox nañ leen jëli mhm. parce que ñun suñu alal foowee wuñu ko suñu alal caaxaanee wuñu ko mhm. sénégalais yi dañoo dund lu metti pour joxe le contribuable mooy maire bi yeew cinq heures du matin dem marché pour uti jën bu mu jaay dundal njabootam dafa contribuer béykat ba ca fim la ci naaj bu tàng ba muy taw ci kawam dafa contribuer Mm-hmm. marchand ambulant ba ca Sandaga ci naaj bu tàng bi dafa contribuer mm-hmm. ñooñu ñëpp contribuer ab nit jël ko jël ci ay milliards jox ko ko warut a jox ba pare kooku taxaw après def loolu ba pare di jaay reewande suñu kaw lii mooy dëgg mm-hmm. di jaay eh, aroon suñu kaw wax wax ju bëri wax ju bëri ah yow heure bi heure bi waroo woon di décréter ay grève sans presse heure bi daf la waroon a fekk ngay grève dafay ca rëbës yow parce que li nga def infraction la ñoo xamante ne ils devraient se retrouver en prison ñooy taxaw di teg pression ils ne sont pas des patrons de presse ce sont mhm. des patrons de pression ils essaient de gérer di jéem a teg pression mais président Diomaye a été clair nul ne peut le faire chanter mhm. mais au-delà de ça am na loo xamante ne seen contribuable sénégalais la ñuy escroquer waaw mais mhm. de l'escroquerie au denier public parce que ki leen jox li mu leen warut jox looy gën a bëri de fiscale di gën a am aide à la presse waaw lu lu koy expliquer groupe GFM par exemple bokk na ci ñi ëpp det waaye bokk na ci ñi ëppale ci aide à la presse bi qu'est-ce qui peut l'expliquer parce que boo amee un franc de det waroo bokk article quarante huit code de la presse bii ma la lii la leeral na ko mhm. lii inventé wu ma ko kon ki ki ki jël code euh, aide à la presse ba pare am dette fiscale kooku moo taxaw tey naan ñu ñun duñ ay hors la loi waa li leerul waa léegi loi bi ma nii est-ce que il si lii kenn mënu koo inventé wu ma ci dara nañ dem ci texte ba tellement mhm. mën nga demaat ci texte bi ah donc kon ils ils ils agissent en marge de la loi ils sont mhm. hors la loi mhm. ce sont des délinquants fiscaux ay nit yoo xamante ne la sàrt yi ci réew mi respecté wuñ ci dara taxaw bëgg a joxe nit ñi ay leçon de quoi oui mais aussi ñu ngi wax du xaalis boobu Maimouna Ndour Faye Maimouna Ndour Faye dégg naa ko mu ne ministre bi il fait de la manipulation te daf leen bëgg a jaxaseeg tey les reporters mais est-ce que ñun reporters que nous sommes waruñu sax ñun porter leen plainte parce que comme li may wax chaque fin du mois bu ñu fayee ko di nga gis ni dagg nañu suñu ay impôt maanaam ñun dañu koo dagg wax pare sàcc ko dugal ko seen impôt mais mais mais Salma xam nga balaa ñu la koo dagg nga gis ko sax boobu tane waaw ki nga xamante ne amul contrat amul dara nag billetage lañ koy fay amul dara lu bi amul IPM amul prévoyance maladie amul IPRES amul dara. déedéet. kon kooku moom ñoom ñoom ci seen bopp ils sont dans hors la loi permanent ba pare taxaw di jéem a jaay rëy la mel Sénégalais yi. Ah. ministre bi ministre bi askanu euh, Sénégal ñoom ñoo jël président Diomaye wóolu ko dénk ko réew mi. Mm. dénk ko alalu réew mi président Diomaye wóolu ko dénk ko lépp lu jëm ci wàllum euh, communication kooku bu ci gisee. jalgati mu dëgg ci tànkam moom lay def haute moom lii mu wax la war a wax alalu askan bi moom moomu ko bu fekkee ñu lookoot ci bu fekkee ñu def ci ay fraude dafa am obligation wax ñu ko mu ñu ko waxul woon lay nekk haute ministre bi wàccoon na ak ñun donc kon kooku la mu def moom ci rôlam la nekk loolu la war a def bu defoon leneen la ñuy jaaxal d'accord alors allo yaa ngi may dégg waaye alo oui Pa Moussa dégg dégg dégguma la je t'entends pas je t'entends pas allo allo oui waaw ma ne appel appel moo doon dagg connexion bi d'accord kon kon kon kon kon ñooñu ñooñu di wax la ministre bi warul wax parce que ministre bu waxee seeni ay génn. Ah, te waaw. Ah, lii Astutura TV bi la ñuy woote. merci Astutura TV jooju bàlleen ñu TV amnistie fiscale TV du dal du ci dal mënut nekk ñii bu ñu yàpp sénégalais yi <laughs> mais cest ñu def lu ne weng. ñu jël seeni ay ayib teg ko ci pénc mi nga bëgg a taxaw di xartaraayu yow bu maanaam bu ci amee ñoo xamante ne man sax da conférence de presse bi dafa xaw a wéet est ce que gars yi delloo wuñ avance. parce que ba 11h ñu ngi naan mais pourtant gars yi 11h la ñu xamante woon. dañu ah. def nii ci micro mais est ce que amul ñu dugg ruqus maanaam yedd seen bopp. xam ne mais mais mais dóor alalu askan wi ñu ne ko fàng ci penc bi yow ñu leer na leen dóorkat baa ngi nii nga taxaw di layam layam yi suñu kaw naan da ngay jaay fit quoi. Mm. heure bii nii un bi ñi mu ngi leen waroon a fekk ci ay procédures judiciaires mm-hmm. il devrait se retrouver en prison loolu mooy dëgg ndax lii ma la citeel article yi inventé wu ma ko te c'est clair limpide mm-hmm. waaw léegi ñooñu ñoom ñooy ñëw taxaw naan way ministre bi dafa nangam dafa ana manipulation ministre bi lan la ministre bi mu génne ñoom dañ ko weddi transparence lañ woote de mais est-ce que est-ce que ci ci ñuy wax ne ministre bi day manipuler am na benn atome de phrase ci ministre bi li wax lu ñu weddi weddi wuñ ko waaye yow yeewu rek toog rek ne manipulation waa wax ñu manipulation bi lan la avec des éléments factuels amul mhm. li ministre bi wax yëpp amul luñ ci mën a weddi waaw comme que amoo loo ci mënti weddi nag da ngay dem bu dee bu dee bu dee reconnaître nga lépp nga jéem a dem nag laaj audience direction général des impôts et domaines mhm. du du président Diomaye ngay laaj audience de DGID ngay laaj ji la joxee nga ñaan moratoire bu mënta nekk nga fay point final. Mhm. parce que am na seen di disposé ah, na moom pare na pour gunge leen man gisuma fi problème. lu waral ah, xataraayu bi mooy pression. Mm, voilà looloo jeex nag la woon woowu woowu woon loolu lañ comprendre wul ñoom xamuñu na yooyu jeex na ay teg pression ministre teg pression président teg euh, chantage après mu jàll loolu amul amatul. nag il faut que maanaam ñenn ñi boo leen di dégg da ngay ngay jàpp ne ñii xëy na dafa mel ni euh, système bi daanu ëlëm na leen bett na leen ba gëmaguñ ko quoi gëmaguñ ko nee leen système boobu jeex na wax leen ko ko. Hmm, wax ko lool. nañ xam nañ xam euh, may mun a Mamadou Ibra Kane système boobu jeex na nañ ko xam quoi léegi dañ dem fay wala ñu buñ mënut a fay ñu dem négocier moratoire mënu ko mënul parce que duñ tëj de. waaw du ñu tëj parce que nee nañ retrait droit de eh. ma ne est-ce que mën nga si ñëwaat non c'est-à-dire mënuñu mënuñu de la tutelle du ministre mënuñu ko bu ñu jëppee nekk ne dañuy retirer de tout ce que le ministre seen problème la mhm. loolu seen problème la ministre bi dañ ko dénk loo xamante ne pouvoir régalien wu état jox ko ko mhm. moom moom mooy dox boo leen mëneen ngeen ñëw négocier moratoire ñu xool lan la administration fiscale mi ministre ministre bi du il n'est pas directeur général des impôts et domaines am na ci ñoo xamante ne day léeg-léeg ñu taafantaloo ne seen entreprise day tëj déedéet du tëjee noonu munoo tëj amel bor. Hmm. déedéet. dafa mel xanaa gisoo kële na le fondation ba balaa nguur gaa daanu la ko di suur. waaw di parce que xam na ne am na boo xam ne bu fa yegg woon pour mu di ko dañuy bañ tey jii nii boo yoree sa entreprise Mhm. entreprise bi nekk en difficulté da ngay dem déclarer lu ñuy wax cessation de paiement boo defee cessation de paiement nga def benn nga proposer concordat benn solution de sortie de crise mhm. juge commissaire ak ñi nga xamante ne dañ la ameel boon yëpp ñi ne dañuy organiser wu en euh, syndic syndic boobu noonu nag dañuy xool ndax yow mën nañ la defal redressement judiciaire wala dañ lay yóbbu liquidation des biens c'est-à-dire la situation est irrémédiablement compromise ñu liquider say biens fay sa ay bor mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo mooy dañuy maintenir société bi en vie pour que société bi mën a répondre de ses obligations sinon bu société bi de kan ngay kan kan ngay fayee kooti kenn très bien looloo tax dañ koy maintenir en vie bu dee nag ñoom dañoo bëgg a génn ci espace médiatique bi alhamdulilah ce n'est que bien pour le Sénégal parce que lu nekk def nañ ko fi ci ñaawteef nag yàggul mhm. waaye mhm. balaa ñoo dem dañuy fay ndax ñun dañoo fay keneen ak keneen dañoo fay mais état aw aussi am na possibilité xool naka lay def ba jël société boobu jël keneen teg ci bopp ba merci loolu mooy administration provisoire ok état am na sañ-sañu mettre une société sous administration provisoire donc mhm. kon nañu xam loolu noonu dëkk bi dëkku droit la la woon woon ni la nañ ko xam mais mais quand il parle de corporation moi j'ai pas compris parce que nag man sama waay su may ànd ak yow dëgg laay ànd ak xam nga xam nga xam nga xam nga ko ce n'est même pas un combat de cor corporation sax amul sens. cor sa corporation bu. du mbirum jun wala wala wala wala ñu ragal seen patron sañ leen a bañ leen a wax dëgg mais mbir mi du mbirum journalisme ak état du loolu de maanaam ñoom seen corporation euh, moom en tant que journaliste du journaliste yi ñoo nekk en cause demal de demal Seneweb mhm. demal Walfadjri mhm. demal feneen ak feneen maanaam ñoo xamante ne sax euh, bi régime bële passé doon def ñaaw téefam ña taxawoon jàkkaarloo ak moom donc qui ont contribué efficacement ci euh, alternative bi am ni ñooñu ah. seen dette fiscale dañ leen ko wax amul sélection amul favoritisme amul dara RTS dette fiscale am dañ ko ko wax mm-hmm. Walfadjri dañ ko ko wax waaye ñoom ñu jug pour wàccoo ji yow nga taxaw ne doo ko def pour lan alors que ñooñu ñoo la am taxawaay bu dig démb. Mhm. yow ñi nga xamante ne ñoo taxawal askan wi tey jii nii ñoom ñoo euh, fay te déggoo leen. Mhm. mais nga nekk ab dóorkat tey nga bëgg a rëy laa mañ ah. mais gis nga rapport yi di ñëw ci kanam am na ñoo xam ne loolu leen tiital. déedéet kay. Ah, waaw nga xam ne mbirum rapport Prodac bi amul ay euh, tele yu enquête. aha ah, waa kay rapport yeneen yi ñëw fond Covid bi am na télé yu encaissé encaissement yu doy waar ak yeneen ak yeneen cour des comptes danga ñëw ci ñoom xam nañu li ñuy def xam nañ ne ñoom ils sont mal barrés léegi nag dañ di jéem a anticiper pour que ñu la tegee yenn mbir yi nga ne li ma nekk li ma àndul ak ñoom ñoo tax déedéet du loolu Walfadjri contre nguur àndul la nguur te andil nañ ko fisc hmm. te day fay tàmbali na fay waa léegi yow yaay kan ba doo fay alors donc loolu mënuñ ci cee kenn kenn kenn kenn mënu koo laya kenn nenu fay hmm. mu jeex buñ bëggee continuer léegi nag bu ñuy xeex nañu xeex bu ñuy politique nanu politique bu leen neexee nekk ay opposant seen rôle la yoon may na leen ko nañ ko def ba mu sës waaye nag kenn du fi nekk di victimiser wu te amel réew mi xaalis da nga koy fay par A ou par B lu ko moy rek euh, contrainte par corps a fi yeneen ak yeneen a ngi fi oui en tout cas mu nekkoon nag euh, lu am solo parce que man damay dégg ñu naan la journaliste nga journaliste nga corporation moi je ne suis pas dans ça man soo nekk. ça n'a rien à voir avec la c'est quoi cette corporation. mais mais même même bu doon mi sama chef da ngaa nga ci sama deret. parce que mais bu doon bu doon corporation sax sa corporation bu nekkul ci dëgg da nga ko war a wax ne nekkul ci dëgg. mais lii du corporation lii ce n'est pas une affaire journalistique. déedéet. patron de presse yooyu noonu. mais gis nga leen dañuy politique. Mhm. leer na leen dañuy politique. waaw waaw. alors maa kan dafay politique. Euh, euh, euh, kooku ki ne borom kër dof yi dafay politique. ah je veux pas citer son nom. jaru ko motu ko motu motu waaw léegi nag booy ay politique te assumer sa politique te politique ko avec comme gentleman mais politique di làqatu ci ginnaaw yi di wax waxu corporation corporation amu fi ce n'est pas une affaire journalistique. Mhm. ce n'est pas un problème mhm. des médias. ce n'est pas un problème de la presse patron yoo yenn ci patron yi poltron de presse patron ah. de pression ñooñu la ñooy def seen yooyu ça n'a rien à voir en tout cas que euh, justice soit faite que lumière soit rendue sénégalais yi xam seen koppar fan la dugg parce que man bi ma gisee et à la presse yi mais dama des sites internet des médias yoo xamante ni yow musoo xam seen existence. dañ leen créé yenn yi pour pour lan l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr parce que yëf yi du. réglé au tribunal mais si médias yi. léegi léegi léegi Salma. Mhm. organe yooyu noonu. des na beneen liggéey. nañ ñu wax ñoo ñu nekk ci ginnaaw borom autori ñu nekk ci ginnaaw noonu ñan lañ. ay xam nga ay ay structure lañ cité ñan ñoo moom structure yooyu noonu. Mhm. parce que ñooñu condition bii ma wax. cinq emploi permanent boobu amuñu ko moom parce que kenn ñan ñoo nekk ci ginnaaw mhm. mais bii bii bii ñoom sax dañoo kii gis naa euh, Jambu TV di tuité démb naan a ah, ñun de liste bii ni wax dëgg yàlla xam parce que ñoom seen bopp lañ siit ah moom jamb na ah, jamb na démb ci tweet ba parce que en fait xëy na jàppoon nañ ne loolu loolu yëpp ñu doon jox ñooñu ñoom lañ ko waroon a jox kon d'accord voilà joxe nañ ba joxe ku mu xamut am ñu mu xamut maanaam ñun dañuy leen di jàppale ñii fan lañ nekkoon ñan lañ. Mm-hmm, mm-hmm. waa kay léegi nag euh, ministre ministre bi. Mm-hmm. waru yem ci euh, loolu ñii c'est de l'escroquerie aux deniers publics. man mën naa dénoncer yow mën nga dénoncer coro mën na dénoncer keneen ak keneen mën na dénoncer mais ki ñu dënk nag pour nga gouverner yow yow waroo yem ci dénonciation. suñu alal fa mu dëgg na génn ñooñu autour yooyu lañ goqi nañ ko en tant que ministre c'est exécuté dans le cadre d'une politique globale définie par le président de la république et le président de la république li mu définir ci politique mooy moom amul cont protégé wul kenn ah. toute violation de la loi sera sanctionnée kon nañ leen sanctionné nañ leen sanctionné mooy yoon mooy dëgg nañ jël nañ autre yooyu ay mm-hmm. ñoom euh, Balma TV Salma TV ñoo ñëpp nañ xam kan moo ko moom netatu point com lu ne dégg nañ très bien léegi nañ génn xam ñoo ñan lañ Mhm, nañ xam ñooñu ñan lañ mais seen pix bi ñu wax aussi dafa jot Pa Moussa ça m'a posé un peu problème je sais pas si c'est normal ou pas mais Bamba Kassé may leeral ni comme moom mooy diriger Synpics bi nga xamante ni war nañoo noo war def nag sax renouvellement bu yàgg renouvellement def ko mm. Bamba Kassé ma lay wax ni bi ñu jàppee Coro Maxu Mandela tu sais ce qu'il mm-hmm. m'a dit taal mm-hmm. otoom fekk ma ba tribunal pour ma dire mm-hmm. noppi si ma ne ko lan moo tax ma wax si noppi Bamba Kassé les journalistes mu ni ma noppi si boo ci noppiwu dinañ la jàpp bul bindati ci sa page Facebook parce que nag yow say bind xamoo fu mu yem egg na ba palais de la République daal di ma ne forcé wu ma la mais c'est un conseil que je te donne Bamba Kassé il m'avait dit ça depuis lors la perdre estime bi nga xamante ne moom laa amoon ci moom. wax dëgg yàlla. journaliste ñu jàpp la nga ne noppi. waaw ñu ne ma mu ne ma noppi ci. c'est-à-dire c'est-à-dire xam nga xam nga xam nga euh, Salma problème mu Sénégal lii la léegi tey jii nii on parle de corporatisme ko woon. ci maanaam tey bi bi bi nga jàpp coro fu may mun a ndul nekkoon. fu mu nekkoon au contraire toog ci seen télé di ko yàq. waa léegi kon tey di si xëtam gu njëkk lu rëy tey jii ñoom ñooy wax waxu corporatisme ah. léegi. tey dañ koy soog a wax quoi parce que tey lañ soxla ndimbal ñoom. waaw kay dañ ko tooñ jàpp ko yéen dañ leen a da ngeen a tooñ fay leen loolu la. da a a sàcc. gis nga gis bañ ko bañ ko waroon a wax. mooy moment bi ñu doon museler la presse di interdire nit ñi wax maanaam yow sa xalaat euh, Salma ñu ne la buñ ko wax parce que dañ lay jàpp mm-hmm. loolu moom c'est-à-dire looloo jaroon jug xeex corporatisme pour la liberté d'expression mm-hmm. pour la liberté de presse mais fii ci Sénégal lañ ci jàppe nit ci ñetti émoji fii fii ci Sénégal lañu jàpp lañu jàpp nit torturer ko vidéo yaa ngi nii fii ci Sénégal lañ fi tëj presse sans aucune base légale mm-hmm. alors ñoo boobu noonu ñoom ñuy tëj presse yi sans aucune base légale fan lañ ñëwoon ci corporatisme mm-hmm. bi di jug di wan Sénégal yi lan moo xew ci mbedd mi mm-hmm. te loolu mooy rôlu presse même ay guerre dañ leen di couvrir sur la plan médiatique mm-hmm. guerre guerre Ukraine baa ngay ñëpp a ngi koy gis Walf di wane li nekk ci mbedd bi ñu tëj ko nangu licence am boobu ñoom fan lañ nekkoon ak seen corporatisme tey ñuy wax waxu corporatisme kenn faale wu leen ci seen corporatisme képp ku ci fekk it wi moom mu ngi ci bu ñu fontoo nit ñi bu ñu yab nit ñi c'est-à-dire dañoo foog ne les sénégalais sont amnésiques démb bi ñuy jàpp Mati Sarr fan la corporation bi nekkoon. wallaay. ba ki démb ba ñuy jàpp ñeneen ak ñeneen di téye ay journaliste di leen xokkatal. di téye ay maison de presse di tëj. waaw boobu fan la corporation